Mady Touré daal na indi ay explication ci li waral mu daal di jël doomu Pape Bouba Diop bi intégré ko euh, ci biir euh, génération foot moom nag nee na foofu dafa daal di agir en tant que père de famille ndax ba mu gisee image yu du corps Pape Bouba Diop bi ca France dafa daal di xalaat ay doomam xalaat euh, bis bu génnee àdduna ay doomam ci yan anam la ñu nar a nekk li ni mel daal moo daal di tax mu jël décision jouer partition ci éducation Aaron Diop Milé mi xam ne ni kon génération. Génération Foot ak yeneen itam pensionnaires yi dinañ def seen kem kàttan ba daal di koy jàppale ci wàllum football wala ci li nga xamante moo di wàllum étudiant mi muy xam ne ni kon ci noonu dafay daal di jéem rendre euh, hommage Kingam nga xam Diop euh, bu nekkee itam euh, moom Madi Touré président fondateur Génération Foot moy fàttali ni jaraf bokk na ci mom nak mom nekk na neveu ki nga lui te moo di Louis Gomis ancien attaquant club bi di jaraf ci fàttali jeudi 17 décembre bi la passé ministre des sports matarba Ba dafa daal di ànd ak ki nekk jabaru dem si yalla Babouba Diop ak ay domam ñu doon visiter installation ci Génération Foot nekk fofu ci Déni Biram Ndaw ci bobu